Mike Vigna. Mhm. Bongo. Tapal ma bii télé. bu ma ko yeeti doofu la. À part moi, y a personne qui peut faire ça. Retrouvez DJ Kheucha du lundi au jeudi de 11h à 13h sur la 2STV. C'est toujours de 11h à 13h, mesdames, messieurs, amis chers téléspectateurs. Nous sommes ravis encore une fois de vous retrouver ici au Parc des Princes de la 2STV. Et rien que pour vous servir, vous savez bel et bien que pour parler du temps, il faut du temps. Et pour ce temps-là, il faut avoir tout le temps du monde. Actuellement, j'ai euh, envie de le répéter en même temps que nous avons et, que aussi ñun ñoo détenir li nga xamante ni moo di le monopole du temps raison pour laquelle à chaque fois quand je viens euh, damay euh, soo xam ne tarkal la moom may yee ànd tout au long la journée maanaam de 11h à 13h rien que pour détendre l'atmosphère nuy naa leen jox naa leen seen wàccuwaay itam yéen ñu ni seetaan un peu partout dans le monde maa ngi di bëgg bu baax a baax les sénégalais la diaspora what's guys naka ngeen def bàyyi na ngi ci jàmm macha allah naka xar yeeg yooyu ba euh, lijjanti geen ko rek ak soble seeg ñoom seen famille bi fii tamit defe naa ne jox ngeen leen yëf yi ayca ñu leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax mais également un peu partout en Afrique maa ngi ñi nga xamante ni ñu ngi nuy seetaan euh, foofu ca Benin foofu ca Guinée foofu ca Libéria ah foofu ca Mali euh, un peu partout ba ci Gambia maa ngi leen di nuyu man xam ngeen ni yéen lu ngeen ma bugg a benn buggaa naa leen ko fukk ba tax na chaque fois su ma nekk ak yéen damay bég damay am contentement ngir di leen bégal sa su ne yéen waa Gambie hello everything is right everything is okay so good Mauritanie yàlla xal naa leen jox naa leen seen wàcc waay yéen itam ndaxte yéen a ngi ñu jaajëfal itam euh, jël seen yéene maanaam seen xol rek def ci télévision bi nga xamante ni la télévision leader muy la télévision autrement la 2STV nuyu naa leen yéen itam jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax a baax bokk na également ci nga xamante ñoom sunu ay plateforme moom ñoom dañuy teg seen téléphone ñenn ñi teg seen télévision à l'instant di commenter di seetaan yéen kenn gënu leen maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay ci Facebook bi di leen jox seen wàccuwaay ci YouTube bi ay waay ay waay ay waay lii baa jàmm la yéen <laughs> xaama jël ki ne ci ligne bi moom may ma ma terminer sax waaye léegi terminer ma sama salutation ma xool bonjour. waaw Kheucha ça va. oui ça toit et léegi dama doon nuyoo nga arrêté ko léegi yeggaleel ma sama nuyoo bi. ah xëtaa nag man mënu ma laa sa nuyoo. waaye yow may nuyoo may nuyoo pareegu ma rek nga dugal sa appel. ah allo. allo waaw ma ne ci suba laa woote ñu ne ma 11 la ma toog di la xaar. te sama crédit bariwul. nga ne ban nga woote. 9h laa woote. 9h. waaw waaw. yow kon da nga dégg ñu ne la xësaa day maye juróomi junne moo tax nga woote. waaw loolu la de. Ah, waa léegi may la. ah xaja bu ma def ni yow tamit. ah yow ni nga ma def nag fekk ma may nuyoo pareegu ma nga dagg ma. may wax nga ne 9h nga woote woon. barki kan moo la wax ni la man damay maye juróomi junni. ah. yaa ngi nii dem nga dugaatal ci 88 ma mën la teral yeggale nuyoo bi nuyu sénégalais yi nga xamante ñoom itam ñu ngi nii seetaan daal un peu partout dans le monde nuyu nañu ñëpp jox na leen seen wàccuwaay itam alors sama séance d'étirement laay def te bu ma koy def xam ngeen nu muy demee saa su pour mën a tàngal yaram bi la mën a ibbeeku mën leen jox li ngeen bëgg toujours ay ca gré bu fekkee ni rogalaanal nga ma ko suuf rek ñu dem let's do the show maaleykum salaam. waaw nangeen ngeen defa defaay. maa sant bu baax. alhamdulilah macha allah. alhamdulilah. tur bi naka la. Mariama Ndiaye. Mariama Ndiaye. Mm. Ndiaye jaata Ndiaye. fan ngay wootee. Mbour laay wootee Mbour. Mbour. Mm-hmm. bàyyi nañ ci jàmm. maa sant bu baax. alhamdulilah Mariama da nga xaw a daal lal la. Mm. ah. xéwal yi rek xam nga rek tabaski ji jub seeg yooyu. dégg ma ne tabaski ji jib si te dëkk bi dëgër rek. mais Mariama Ndiaye dafa sa baat bi dafa amul baatu ku may jox. Mm. waaye sama benn téléspectatrice boo xam ne chaque fois daf may woo. Mm. teraloon naa ko ñaari yoon. sant mm, du bi. ndeysaan da ngeen xaw a niroo baat yéen a ngi ci jàmm. aayaya Mariama Ndiaye bul dem waay borom mbuur géej. ay ci on continue toujours a chers téléspectateurs nee naa leen tous les mercredis euh, li ma leen di réserver xam ngeen ko mooy 100 pour cent rétro euh, pour vous dire véritablement que ni euh, lépp lu ngeen gis rek ci musique dafa am fu mu tàmbalee dafa am fu mu dooree ba tax na li nga xamante ni moo jiitu waaye bàyyi ma jël ki ne ci ligne ba pare 88 628 14 16 c'est vrai que ni nag tabaski li ci des barewul moo tax ligne bi kat naas na lool salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen defa def. ça va bien ça va très bien et toi. ça va bien nank nank bul gaawantu wax ji nank rek crédit bi du jeex <laughs> yaa ngi ci sant yàlla bu baax. ba lépp nice. waaw sant bu baax a yaa ngi dee cool. sant. yaa ngi dee baax. waaw bu baax. mais foofu la fan ngay wootee. maa wootoo woon bërki démb. yaa woote woon bërki demb waaw Umu Xayri Ndiaye. Umu Xayri Ndiaye. Mbooro waaw. la laa la waxoon bi nga wootee. non dafa daggoon. dafa mujjoon dagg. waaw dafa mujjoon ah, dagg waaw tey du dagg may naa la juróomi junni. waaw incha allah. ah boo boo coupé nag ba ba jëluñu sa tur. yaay dox ci jot de. Oumy Khayri gis ngeen Oumy Khayri yi muy def moom salaamaaleykum maaleykum salaam moom day day day day ay ayca mën nga bu leen di coupé bu ñu leen nee may na leen dara euh, da ngeen di bàyyi nànk ñu jël leen ci suuf laaj leen seen tur. ak seen numéro téléphone mën leen jox li nga xamante ni moo di koppar gi waaye umi xayri moom bu fekkee ni coupé euh, xamal naa ko ni ko may naa ko juróomi junni on continue toujours ci concept bi ma leen wax parce que tous les mercredis fekk ji ki nga xamante ni nag mooy Papa Thione ndaxte xam ngeen ni yàgg nay woy lu neex Papa Thione bu nee der sa xel dem ci ndaanaan waaye Papa Thione Ida gi nga xamante ni woyoon nga ko dafa nekk sama xol ba tax na tey moom laa indi téléspectateurs yi ñu ubbeeku rétro yi ma leen réserver tey non ku ko seetaanul doo ko xam ñu dem seetaan ko wala ñu jël ki ne ci ligne ba pare euh, ci 88 628 14 13 mbokk mi salaamaaleykum. maaleykum salaam. oui. ça va noo def. ça va bien. ça va bien. très bien waaw. waaw man maa fi woote woon barki démb. te yaa fi woote woon barki démb. oui. loo tudd. ah. loo tudd. Aminata Sow. Aminata Sow. waaw. waaw. bi nga wootee. après ngeen ni ma am naa fa benn loo mais finalement bi ma ñëwee ñu ni ma fiiwul amul. loo loo compressé yaa wala dara am na yu ñu fi yu ñu fi bàyyi de est-ce que du yaa moom. ah ñëw naa fa daal ñu ne ma sama tur nekku fa. kañ nga fi ñëwoon. bàcc dem. mais sa loo wa ngi fi parce que gis naa ne am na ay loo yu fi des yoo xam ne kenn jël seeni borom jël si wuñ ko. tout à l'heure dina am benn élément bu ma leen dugal firndeel leen ni leen am na ñoo xam ne gañe woon nañu xar euh, te jox nañ leen ko tey le matin même. ana nga oh là dem na waaye bu fekkee ni yaa ngi may dégg am na loo yu nekk ci entrée bi bi may dugg gis naa ko bu fekkee sa tura nga fa ñëwal nga jël si ko wala ñu xoolaat ko bu baax a baax ci fichier yi wala bu fekkee ni yembul rek mën ngeen jël numéro ak turam ñu mën ko baaxee loolu noonu on continue toujours ci ambiance bi dugg ak Papa Thione puis on revient am na ko ne ci ligne bi ay ñu jël ko pare 88 628 14 13 mbokk mi salaamaaleykum bonjour. kooku dem na ay ayca ñu continuer toujours ca gré rogalaanal ma papa coon bi ci suuf ñu seetaan ko daw siwaat ba tey am na ko ne ci ligne bi 88 628 14 13 mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen defa defaay. ñooy sant alhamdulilah maa ngi ci macha allah. alhamdulilah macha allah. Euh, tur bi naka la. Xadi Xadi Fall. Xadi. Xadi Fall. Xadi waaw. Fall Ndiaga Yaram fooy wootee. maa ngi woote Kër Massar. Kër Massar. waaw. wul de. waaw sorewul <laughs> mais yéen a ngi baax foofu naka mu. ñoo ñoo ngi nii rek xanaa bëgg ci xéwal rek. ah Khady Fall yow tamit doo ñëw ñu waxtaan tuuti sax waaye sala léegi daal Sénégal bu ngeen dugg see du ngeen waxtaan ak man yéen da ngeen di ñëw tudd xaalis waaye léegi xaaral ma denc xaalis ba ci kanam ak kanam kon. ah waa léegi di waaw ci jàmm bu baax. foo toll ci ñaw mi. dara nag pareegul. ah. amaguma ñaw. amagoo ñaw. déedéet. deux jours de l' événement nga ne. est-ce que sax benn jour léegi parce que jeudi suba la. nga ne amagoo ñaw xadifa ko doo am ñaw yi xat nañ instant yi. mooyoo man aw ñaw de maa ngi nii xanaa xale yi. xale yan. sama doom yi. am ñaw. ñoom ñoom laay lijjantil. ñoom ngay lijjantil ñaw. waaw waaw. Khady Fall Kër Massar. waaw. waaye ma may juróomi junni rek. ah <laughs> alhamdulilah. waaw ayca bul coupé ñu jël sa. yàlla na la yàlla ñu bokk lépp. nekkal ci jàmm ay te jël leen turam ak numéro may nañ ko juróomi jur ñu wéyal nag ngir yàlla nag tuuti rek ci papa tamit bokk na ci li nga xamante ni def it sur la toile sama fa ngeen nekk a euh, yi nga xamante ni tarkal daan def it euh, sur la toile ngeen ko daan jël di ci foo ci kaf ci tànn béer yeeg ñoom seen waaye bii tamit tànn béer boo dem rek lii tojoon na ko yàlla bu mu doon ay kermesse ndeysaan ay jamono kermesse yi tàmbali rek gars yi télé bi lu leen neex ngeen daan def ayca 88 628 14 13 mbokk mi salaamaaleykum <laughs> salaamaaleykum. allo yi salaamaaleykum. waaw ñu ngi siyaar ñu ngi siyaar bu baax a baax. naka mu nag naka mu nag yaa ngi am nice maa ngi am jàmm yaa ngi am jàmm. allo sa liggéey rafet na waaye keroog woot naa pour xar sabas bi bi léegi mooy loolu. déggu ma. waaye keroog woot naa keroog pour woote nga fi. pour xaru sabas bi nga dem après mooy boole woon la ci liste bi. waaw am na benn élément buy ñëw di nga ko gis léegi léegi léegi bu ma paree ci yow ndax moom lay dab léegi léegi di nga gis ni may na may nañu euh, fi ñaari xar tey ci fajar am na ñu ko jël si. waaw borom kër laa mais li nga nekkoon borom kër a boo taxoon ñu boole la tirage yi dan la ciy boolewaat rek baal ñu boolewaat la ci tur bi naka la. ay ay moom warul woon dem waaye pour wan ko preuve ndaxte Sénégal réew mi ñu toll nii xam nga VAR dem na ba ñëw ci football kon war ngeen xam ne war nañ di dem VAR ñu dem vaar xooli xar yi vaar yóbbu ma vaar gëre <laughs> mais comme vous voyez nos heureux gagnants sont là ñëw nañu jël ci seen i xar waxoon nañu leen ko euh, ni leen dinañ leen di may ay xar dinañ leen may xaalis waaye ñi nga xamante ni tarkalla euh, ñoom nag euh, bokkul ak ñi gagné woon ñi woote woon mais dañu jël si yéen bàyyi leen yóbbante yi yéen du ngeen jël si seen bopp seen xar ah ñi war a doxi seen ay yite grand maa ngi lay nuyu mais da nga masqué woo de mu demee ni waaw gis nga dama xamoon jàpp quoi léegi sama doom bàjjen ñu ma jël si ko xaram moo tax xaw tax moom fi nekk dafa xaw a sori ma xam ne jël si ko xaram ni la moo tax quoi mais lu tax nga tàkk masque bi nii non c'est que xam nga rek fagaru moo gën fagaru waaw eh, donc ma wóoluwul wala non non du loolu sax <laughs> da dañu protéger sa bopp yaa ngi may protéger respecter la mesure barrière la ñu wax waaw kay fagaroo gën faj waaw dëgg yàlla waaw macha allah dëgg yàlla xar yi moom macha allah nice na dëgg yàlla te liggéey bi am solo lu def waaw dëgg yàlla non di leen ñaanal ci kaw ci kanam rek ak yokkute wér waaw ca kaw ca kanam ñu ngi lay kontaanee. ci seen ko. Ousmane. Ousmane ah waaw mais c'est loo tur mais mon ami. mais très cher dafa mel ne Saint-Louis nga dëkk de. waaw from Ndar la. <laughs> mais naka mu. mais naay ah, soo alhamdulilah. nga jugee nag xar bi wala. non en fait man fii laa dëkk mais xar bi c'est pour une tante en ah. fait moom laa ñëw représenté quoi. tante la xaw ma <laughs> non non ah. Amsatou Gueye la rue de Paris la dëkkee. ndeysaan waaw waaw moo gañe xar mi waaw. alors yow tamit nga ñëw jël ko xar mi naka laa la def affaire yi. ah ça fait plaisir ah mine de rien mais voilà on salue l'initiative aussi on vous remercie parce que voilà jamono ji ak nu mu xatee nu mu méttee gars yi di jàppale ni ngi ak xar c'est vraiment intéressant et on vous remercie en tout cas. mi ngi noonu ñi ñoo doon ne ñi nga xamante ñoo gañe xar yi nga bëggee ngeen woote ci 88 628 14 13 ñu mën leen di bëggal saa su ne c'est toujours avec la 2STV yi bëggee yesa yesa yesa dama doon seetaan sama bopp xam ngeen ni lii léegi léegi la dara changé wu julli ma sol maa ngi nii soloon sama t-shirt sol sama jean def samay basket yu mool yoo xam ne Ibou Maketa moo ko jox tarkal la jëm ngir teral ñi nga xamante ni ñoom itam seen ay xar lañ doon jël si kontaane nañ leen bu baax a baax merci d'être venu nii rek la ah da ngay woote ci 88 628 14 13 gàddu sa xar yow yóbbaale loolu ngeen yóbbaale noonu nag ma may ay pooj non moom may ay pooju xar de dara doo xamul tax kii gars yi mais élément dafa gaaw a ñëw sama gars yi yéen mën a liggéey de barki alxuraan monté ko montage bu gaaw fii daal équipe bi yàlla na seen jàmm yàgg toujours ñu continuer ci ambiance bi dem seeti CK xam ngeen pointure kaawaan ma ko kutu kutu kaawaan ma ko ma ko nëbbu kaawaan ma ko loolu dafa fees ñu dem seetaani CK puis on revient merci beaucoup pour la page pub merci beaucoup Aïssatou kontaan nga say élément jàll nan de <laughs> Aïssatou commercial moo bëgg publicité de maa ngi lay nuyu yaay booy di la charré bu baax a baax a baax nee naa la après nga dem ci Beva Beauty mu defaral la sa wey yi defal la soin de visage également ah Beva xale boobu nga xam tarkal la bu la defaree la ci saas da ngay xaw a leer ay ta ñu continuer sur le même lancé euh, di leen fàttali leen na nag ndaanaan bi yegsi na kooka ñu ne ko Ousin Kayta bërëm bërigo tey la nar a fii ci parc des princes ba boo ko defee ba dagg suñuy fii rek que Ouzin dootoo ko dolli ay te ñu continuer aywa dama doon dem de dama doon dem de wala bàyyi ma jël la ba pare 88 628 14 13 mbokk bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. bonjour. bonjour Kouta. ça va. ça va bien. très bien et toi. ça va et toi. ça se passe c'est comment. ça va. c'est comment tur bi. man Awa Sall laa tudd Awa Sall. Awa. Sall Sall. Eh, Sall ngaari lam tooro buur Guédé. ay gis nga racine yow koo gënul ci réew mi gënu la. eh ma ni Macky Sall moo jiite réew mi. ah waaw ah Sallé nii nu ngeen nelu ci yéen la man Sall laa sant yëgoo lool man nag sama sant bi dama ko. non dencoon. aywa bi doom baay damay sat damay sat may naa la juróomi junni doom baay. aywa loolu eh, dama ni may naa ko juróomi junni xaaral ma wan ko xaalis bi li mu sant Sall tax ay eh, waay maa ko def. aywa bilaay na ko. Eh, doom baay bàyyi li ngay wax waaye bul tax ma may la cinquante mille kon. bilaay waaye yamal ci juróomi nii rek waaye waxal ma samay baax baax continuer ndax li ma la may bari na. man de xoolal ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan doom baay. na mais koo bëgg rek bëgg na la yow nekk yaa ngi ma bëgg te xamoo ni sa doom baay laa. raw naa la ba mu xoolal ba ni ba ni voy voy. Ouzin <laughs> Keita. wala ma bëgg nii. bilaay li ngay amul. non dama doy nag. bilaay da ngaa amul sañse. xam nga waa Colombie Colombie. ah. xam nga leen. ñan si. Colombie ñooñu di sol felt yi mooy acteur Colombie yooyu noonu te ñu yor pistolet yi. ay waay sama xarit bi bu mu dem mayoon naa ko de Fatou nag ma confirmeel ba ba xam jël nga turam ak numéro am sàll ngaari moomu ndax may naa ko juróomi junni après nag ma ko confirmeel ñu dem seetaani waa flash ah euh, bi nga xamante ni moo tegu ci yëf yi après ñu ñëw nag dalal benn ndaanaan bi laata ndaanaan bu mag bi di ñëw mi ngi mi mel ni ku jógee Colombien sol feltam yow sol ay gàdde li yoo xam ne non man lii xëy xamul lan la mais man sax du ma wax ak ñoom. ayca euh, Gré rogalaanal clip bi ci topp laata benn ndaanaan bi di ñëw Ousin doog yegg si macha allah def na buzz étincelle sur la toile Massaane ndeysaan baat bee neex de lii jeexal na xool de lii Ousin woo ko mën nag Ousin dëgg bu la jàppale gàmm bii ngay xam ne woykat a ngi nii loolu Ouzin rek ko mën <laughs> sama xarit bi moo oh, kontaan ci bu ma koy gis daal dama ko doon bon ko bàyyi woon nag de ay ca 88 628 14 13 la ngeen mën nu joindre laata may dalal ndaanaan bi njëkk nag ah, xale la boo xamante ni moom tamit euh, il est hors pair ah dimension extraordinaire également fayal sa flash bi fay ko fay ko fayal sa flash bi lii la la yow baa jàmm la dama lay génne de ay ca ndaanaan la boo xamante ni il Hmm? booy la boo xamante ni mi ngi doog a ñëw sur la toile dama bëgg ngeen découvrir ko ndaxte tarkal la bu ngeen ko découvrir di ngeen xam li ñu découvrir ko si c'est calé à la régie mën na dugg defaale show am defaale play bagam laata Ousin Kayta di ñëw ñu dem xooli booy bi et eh, let's do the show Mr Tampi You're not someone you're like aluminum. You're bored, but kick on, how you fucking need. Why you sung your bob, you're my sung your dick. Why you didn't a buddy, man, you're like a lunch. Telling Lenny Little, guess who didn't don't you? Your mom and Jotan, do you hate I don't know, you don't, and you're moving your moon. Yeah, I ko changé defal ko beneen euh, parce que lien bi ngeen ma yónnee. moom la yónnee de moom laa yónnee gërë gërë lien bi la teg de ah calze calze bi ma yónnee laa yónnee de. mos mos en tout cas nee ngeen ma yónnee na ko bi ma yónnee daal laa yónnee. mu demee noonu ah. mais mi ngi cool. mu ngi cool bu baax yëf yi ngi baax. mu ngi baax ñu ngi lay charré di la nuyu. wasa bu fekkee ni mos mos tampi mos ah. waaw mos euh, ko rek gré mën nga ko dogalaanal très rapidement. Euh, mu playback euh, laata Ouzin Keita di ñëw parce que aussi yitewoo nañu ko alors depuis quand tu sur la toile. waaw depuis ba léegi ñu ngi ci kawam. Hmm. di yëngal yaa am gën a xam. ok ba léegi. waaw ni baax taxawal ni baax mais ba léegi gars yow kenn xamaguloo woon wala da woon rek am nekkoon di liggéey bagage yeeg waaw waaw ñu nag salaamaaleykum mooy nuy Sénégal yëpp. Hmm. di nuyu àdduna wërngal këpp. Hmm. di nuyu Tampinda yëpp. cat ba cat di sàkku jàmm di ko ñaanal ñëpp. Tampinda magum bërëb. depuis 2015 ba léegi ñu ngi ci lañ commencé suñu carrière. Hmm. mais ñu dañu yàgg xam ne yàgg euh, job ñor rek moom solo quoi. ñu yàgg tëju joob nag xam nga ñu ñoo lëloon suñu bopp quoi mais instant bii nii job bi ñor na ñor na quoi moo tax ñu génn xam nga xamal sénégalais yi ne indil nañ leen ay titre indi premier suñu premier titre mooy bàkk bàkk ñëw ravagé nekk soo boo xam dafa ñëw rek macha allah ndaana ni bëgg ko. Hmm. mais profité ci occasion bi di ci nuyu Papa Thion parce que bi mu déggee son bi daf ma woo téléphone. apprécié ma woo ma gàlleem xam nga defal ma ay tranga boole ma ci albumam bi. Hmm. xam nga ma koy remercier ci loolu bu baax a baax a baax. à part loolu nag bàkk bi génne nañ zalu. benn morceau bu tudd Zalou Zalou tamit bi mu ñëwee gars yi ko carrément xam nga sénégalais yi jël ko xam nga def ko seen yëf moom amoon na vidéo quoi ba léegi vidéo mu ngi YouTube gars yi ñu ngi koy suivre xam nga mu ngi nice vraiment bii mooy mos nag bii mooy tool quoi ayca kon mosal ko gars yi rapidement waaye ko mu mos jamono bi dafa tar réew mi yëpp bëgg mos mos borom doole mos mosal mu mos réew mi yëpp ba a mos mosal mu mos bàyyi ko mu mos jamono bi dafa tar yëpp ba mos baado mos borom doole mos mosal mu mos réew yëpp ba mos sikkima mosal mosal dëkkandoo am njaay joxal jóob nga la bu ñu xel lekk xel yàq jeex na yamaleel sak rek a fi ne saxoo muñ yokku ngëm kër yi la ñuy tere bi laaj na gore dimbale ko tane jëfal yàlla soo ko mënee mosal mu mos bàyyi ko mu mos jamono bi dafa tar réew mi yëpp a bëgg mos baadoola mos borom doole mos mosal mu mos réew mi yëpp a mos mosal mu mos bàyyi ko mu mos jamono bi dafa tar réew mi yëpp mos baadoola mos borom doole mos mosal mu mos réew mi yëpp ba bëgg a mos réalité sama town moom ngay gis ci téléthon njàng meek njàngale mi culture sport secteur privé dara doxul lépp taxaw nañu saytu def ci yitte amul xaji amul seen diaspora bi ñoom it ci lan crise bi branche yëpp la laal calcul mental bopp yu toj yenn gox yi dëpp ci ndaw yi xonet su maas yokk buur du fal poos ceeb bu niin biiru baadoo la ñàkkul lum siim eh eh mosal mu mos bàyyi ko mu mos jamono bii dafa tar réew mi yëpp a bëgg mos baro mos borom doole mos mosal mu mos réew yëpp bëgg bi dafa tar a bëgg mos baro mos borom doole mos mosal mu mos réew yëpp a bëgg mos Euh, comme ni ma ko waxee mos moom xam nga eh. déjà ku déglu sànq la ngay comprendre. mais waaw li ñuy mos mooy lépp rek lépp eh. lu baax rek. dañ ko dañ ko war a mos mosal jox sa morom mos quoi <laughs> xam euh, na ci ñi nga xamante ni euh, production Calze defe naa ci nga. Eh, Buzz Events Buzz mu doon fierté également pour lui ñu avancer tuuti parce que dama bëgg gën a leer nga gën a sàjj aussi alors qu'est-ce que ça te fait ngay liggéey ak benn jeune tout comme toi. waaw sant yàlla rek. Hmm. àddina moom dafa nekk loo xamante ni bii tout est début rek day difficile quoi. Hmm. mais chaque jour rek bu ñuy job di gis ñu ne suñu ginnaaw di apprécier rek loolu dafa ñu yokk doole quoi. Hmm. doole boobu noonu nag moo tax ñu ne ci jàpp bañ a bàyyi. xam nga moo waral ñu indi mos bi xamal Sénégal yëpp ne que ne da ngay mos bàyyi sa morom mos parce que actuellement jamono toll na foo xam ne xasaa bu ñu mosalantewul rek du baax quoi. parce que xam nga doole yemul quoi. Hmm. moo tax nag ñu indi mos pour gars yi mosalante xam nga affaire yi jàll parce que mbas mi dafa laal fépp. comme ni ma ko waxee ci sànq bi dafa laal fépp laal boobu noonu nag comme ñun ay porteurs de voix lañ fi askan bi toll fa la ñu ñëw wax ak ñoom quoi xam nga looloo waral ñu indi mos jox ko sénégalais yi mos baa ngoog actuellement mu ngi ci youtube bi hmm. mu ngi euh, instagram mu ngi fépp plateforme yëpp foo dugg da koy fekk ci kaw loolu nag mooy profité di ci occasion bi di bëggee sama benn grand Cheikh leader hmm. leader comme ñoom ñoo def vidéo bi san bi maa ngi ko joobee jiifa ñoom ñoo joob euh, san bi quoi hmm. euh, zan moo ko tëgg xam nga mu nekk job bu nice vraiment son bi nice xam nga vidéo bi job bi nice dara méttiwul quoi. et c'est quoi les projets rapidement. waaw projet yi na comme ni ñu ko waxee actuellement nag tant pis artiste la. Hmm. Buzz Events koo ko wax da ngay tudd Paco da ngay tudd Kalz xam nga ñoom ñoo teg structure bi. Hmm. Euh, Buzz Events euh, événement ci la doon dox xam nga mais bi yàlla defee euh, relation yi am xam nga li ñu naan xale bu loxoom seete day mën a bokk ak ay mag après nag ci lañ jël tampe nag mu nekk seen artiste boo xam ne si mooy seen first artiste boo xam ne moom la njëkk a produire quoi teg ko ci marché bi xam nga ci kaw loolu nag projet bi ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax après indi nañ zalu ak mu ànd ak vidéo mos baa ngi nii ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yaa a gën a xam wax feeñ quoi mais job bi moom bu baax bu naay see rek après dañ koy viré ci Pape Sidi après nga jéem a def aaru mbedd. jéem ko gën a yaatal pa mu gën a naay. waaw gis nga noonu la war a demee mosal mu mos bi rek. kon kon ko mos nga. buñ mosee fii waaw ñu mos mos teneen ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax. rapidement merci beaucoup ah. merci beaucoup très cher. ñu may bëggee nag tàmpinaa yëpp cat ba ah. cat di bëggee sama famille xam nga ñi ciy jàpp gars yi support maa ngi bëggee ñëpp ku lim juum xam nga su ma nee tampi daanaka jeexal na wax képp kuy bëggee tampi di bàyyi xel tampi maa ngi lay bëggee di la ziar di sàkku jàmm di la ko ñaanal di la xam ne temps moo ci xajul mais. yaa am kon Ousseynou war a mos dugal noonu ci biir merci beaucoup rapidement Gré nga laal ma benn clip ci suuf aussi euh, Ouzin Keita takk ay jaajam pare woon na sax mais mu gën a takku ñëw yëngal euh, bégal sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi ko doon xaar boobaak léegi ayca Gré rapidement du nu amuñu temps danga koy dagg nag bu Ouzin pare ayca ñu no, no, no, no. doflu <laughs> ba jël sama avance dama lay këccëb eh xam nga xam nga këccëb këccëb boobu di saf suukar noonu booy doo puusi affaire boobu di booy puusal waay sa kanam gu wow li war ga suukar naan man tak pasi moom lay naan waaye ama koy toflu ba jël sama avance dama lay këccëb taawal eh, yow kenn xamula waa yow xam nga këccëb xam nga këccëb këccëb xam nga ko non non waaye këccëb mooy affaire boobu di saf suukar noonu doo doo puusi affaire boobu di booy puusal waaye sa kanam gu woowu Mohamed Dia depuis Saint-Louis oui baa du sama ancien classe boobu noonu Mohamed Dia te mënoon tricher oui c'est lui ah mais mais kii wa dàqoon tricher suñu classe bi may def CI CP C2 non kii dañ ko daan tër comme pas possible mais Mohamed noo def wallaay na mu noo mujjee ak études yi da ko mujj baax. bon bàyyi ko. waaw di ko bàyyi waay maa ni ni ko jëlee woon neexul waay maa da doon tricher rek. 10 ñu ngi lay nuyu. roñ ay yemaan waagwaan waay tàndo bi kap dansal sing sang sung sang di bëggee ja ma jox verre ya ah. rang may takk ay verre kunkang yow da nga mosoon nekk Chine. non Chine def naa fa deux ah. <laughs> gis na ma na ma mu mag ji sa mbaxane mooy ban mbaxane. kii fourrure de lapin la. déggu ma. fourrure de lapin. kon mais ah. yow doo bàyyi suñu nee pata nga yenu pata ne yaa pata pata gaa la. respecter sa pata gi. franchement il faut être fier de ce que tu es. et puis pata yombul ah. nekk pata c'est que quelque chose de facile. 10 500 Ahmed Seck ma yónnee la sama 10 500 nga ni ma 120 000 laa la koy defal Ahmed Seck fi réew mi toll corona ñu yoratuma. ma yónnee la sama 10 500 gisuma 120 000 yónnee ma sama xaalis wala ma def arrivé fekk la caisse pièce de tasse la. teg la ci taabal yaa ngoone bi Ahmed Seck yàq la Ahmed Seck boo banqué di dajale 10 500 nit na dak yow xamoon nga ne boo jëlee alalu astrologue yow da ngay siiw ne Fatiha <laughs> merci beaucoup pour les rubriques TikTok Leuz Shop yooyu eh, booy Leuz del teel yow di ma yónnee samay vidéo Leuz loolu yëngu nga succès <laughs> de borom Louga loo mi ngi waaj lu doy waar Louga mbokkum yaay Papisco Papisco yaay waaj dem Louga ah, maa ngi lay siyaare Lamine Gueye électronique aussi maa ngi koy nuyu euh, du nuy Chris béggee naa leen bu baax a baax Tidiane waa marché bi yëpp maa ngi leen di béggee maire Mbaya nuyu naa leen bu baax a baax a baax a ah, maire Diaga itam alors rapidement amis chers téléspectateurs ñu wéyal nag dugg ak ndaanaan mi nga xamante ni ñoo nañ koo invité ñëwut waaye bi ba teel yow moo ma tey ni ma xëcaa ah, foo toll foog nga waaj parce que man pare naa takk na ay jaajëm pare na amis chers téléspectateurs voici un phénomène d'une dimension extraordinaire il est venu différemment et il est toujours sur la toile kenn mënul wax ba Ouzin du exister sur la toile ndax nit ñee ko bëgg ba tey nee na ma duma fay du ma dellu ginnaaw du ma ragal te du ma tiit Ouzin Keita moo fi ñëwoon tey ngir bëggal leen amis chers téléspectateurs c'est à l'instant ayca Ouzin. ana yoon bu fi am. ba mu amee ñi nga yuuj ñi nga yasal mbalee yow xanaa neex sara ci digg aabi caaxaan dootu ma ci génn sarax ci digg aabi caaxaan dootu ci génn sarax ci digg aabi bul gasam bul gasam mbaay benn baa nga suuf bul basam bul basam baal gerte laay la la laa naa daw wasit dinaa di woy Samba Ndour woo ma Nday Anta Nday yaay sama waay yaay boom siwis kenn damul bala a baraj a baraj baraj ku fee dikk na yëf la. Xasa micro wuy ma micro daf na eh Xasa eh taxaw leen. ma xaaral. eh waa ku ma ma waa ku ma padd waaye su ma ko toppee. du baax est-ce que micro bi mi ngi cool léegi demel ne gars yi defaral la ko en attendant demal ne la ñu defaral la sa micro excusez-moi ma jël mouchoir ngeen baal ma li sama yëf la waaw xasaa us kontaan maa gën a kontaan. mais mais bëgguma nga ñëw rek wax neel der neel der ñu xam li nga liggéey ndax xam naa ne yaa ngi doon liggéey. Eh, neel der xasaa. waaw maa damay nuyoo tam. waaw doon der rek nit ñi. Eh, bàyyi ma nuyoo. ma nuyoo sama fansi maa ngi nuyu ku nekk turam a santam. woy ma asalaamaaleykum asalaamaaleykum ginnaaw yàlla mujj na si sant sama ñaawaa maa ngi sant sama waa Sénégal di sant kilifa diine di euh, kilifa aada yi di nuyu samay soppe di nuyu samay fans di nuyu sama papa sama yaay bi nekk suuf yal na yàlla euh, suuf am seen kaw tey te yàlla yéexuñu si bakk Seydina Mohamed di nuy di nuy waa Sénégal di waa àddina nuyu ñëpp di wax tam xasaa di la nuyu. maa lay fay sama waa ma bëgg xasaa tam balaa may àggale wax bi nga jox ma si sama toog balaa may dem. si man bu ma taxaw yéen taxaw ma ma ko xasaa. <laughs> non fii parc des presses de ñëppay taxaw. ah kon xasaa kon caaw. waa kay wutal leen ma siège même wutal la siège. taxaw man dèjà. Eh? émission bi. Eh? ñëpp gi taxaw ma wax taxaw ma de. Eh? dèjà taxaw ma. bëri yëngu ma. Hmm? dèjà xaw ma ku ma padd ma yaa ma padd suuf xaw ma ku ma padd. ma la xaw ah, wutal la siège. xaw ma ma même mu doon maa ngi lay seetal siège maa ngi lay seetal ah, kon neex na. <laughs> <laughs> ba mun a àggali nag. Ouzin c'est la première fois nit di toog fii. waaw maa def. fii kenn mësul toog. maa bi kenn deful. <laughs> <laughs> jëlal ma ko ci suuf mais Ousse. Hmm. mais Ousse kontaan naa sa fait plaisir. Euh, ñu njëkk la invité ñëwuloo. Euh, loolu du ma ci ñëwaat sax ndax def nga video wan nga ma ni ma da nga jàppoon et tout confinement bi déglu rek ma ñëw nag tarkalla du du yow yaay animateur bi may ma may wax dégg nga. yaa ma invité. waaw maa la invité invité ma léegi ma ni ci confinement bi ak couvre-feu bi nga xamante ni yoon yaa ngi woon toog sa kër naka nga ko dundee. métti lool. métti woon na. ba ci sëñ Fallou woon lool nga war fay sa kër. nga a dund nga war a nàngam dafa métti ñu artiste yi aar am moo tax artiste dangaa war am façon mm, façon métier bu ne ba mu def métier bi ñàkk fayda mm. artiste dangaa war a nekk euh, dangaa war a nekk euh, fële grand mm. artiste dangaa war a euh, artiste dangaa war war a am kii artiste alors aussi te ngaa taxaw. maa <laughs> ngi toog. kon jàkkaarloo kon. <laughs> boo nekkee artiste da ngaa war am façon métier bu ne. Ah. ndax aar kase dëgg la aar moom lañ am. waa aar kase euh, xasaa aar euh, kase tey xasaa. Mm-hmm. tey euh, tey jii feebar bi tax na tey jii ñun artiste ñu war a am beneen métier boo commercé wul wala ngay jaay. comprends nga. Hmm. war nga bitik war ngay def nekk war nga war nga am benn métier boo nekk bokkul daa artiste bi. Hmm. ndax tey jii toog presque cinq mois liggéeyoo xasaa man ba sama yaay feebar ba tey avant sama yaay dikkaat ba tey liggéeyuma xasaa dafa yàgg. ndeysaan gëj naa liggéey alors nga daan dundee ak confinement bi couvre-feu bi xaalis amul woon. doxul woon xanaa woo samay géej rek di woyaan. Hmm. ku ma wax Ouzin Keita vidéo anniversaire nga fay ma yéen sama sama nit ñu baax di ma taral. ndeysaan xam yàlla dafa dogal àdduna maa bëgg dañu ñi ne ne maa jox ne maa dugg. waaw man moom du ma suwaal noonu ndax nag ku suwaal doon mais est-ce que toogaay bi nga toog gis na ni période bi ñu toll nii euh, que Ouzin Keita dafa takkoon jabar euh, mu def buzz sur la toile et tout mm-hmm. ça loolu noonu takk jabar bi rek nga ci defoon wala am nga jabar non waa c'est waa am na jabar xam nga hmm? sama jabar xam nga ko xam nga waaw man xam naa ko mais sénégalais yee tax ma may xamal nii sénégalais laay ah, jéem a xamal euh, sénégalais moom <coughs> mais ñu bëri leen du dëgg waa nañ jàpp nañ jàpp loolu xam nañ jàpp hmm. ne sénégalais yi jàpp Ouzin am na jabar hmm. yeneen ni moom du ma si wax waaw ma gën a métti sama àdduna tam di ko waa Sénégal hmm. dina jéggalu dina dina dina dina jéggalu muy sama laa demee anniversaire bi ma woon invité fan ma am benn retard lu retard sax damaa yeewu mënu ma dox <laughs> mooy bi ma la invité waaw bu ma fa ñëwoon te tey ji fu mu poussé may damay poussé ndax nga def anniversaire xëy suba xasaa bu mun ma woon dox mun ma woon wax mais ku la est-ce que jàpp la woon mystiquement eh, non naa tam yaa xam nga daal li nekk si biir xasaa maa waaw mais mais mais nga ne ci aar bi di wéyal euh, am yaakaar ci lu bari. Mm-hmm. am sa nawle boo xamante ni moom itam il est sur la toile muy Pawlish kenn mënul mm-hmm. wax Ouzin te du ne Pawlish moom mu ne ah. dafa ñëw pour yàq aar bi loolu naka ko ko gisee euh, xam nga euh, nit ñi yemuñu ma damaa ñëw pour dafa aar ma dafa ñëw pour yàq aar hmm. xam nga suñu aar bi aar dafa fiir hmm. aar boo ko raxee rek day dem moom na làkk moom na yàq aar man damay defar aar waaw maamam bokkuñu isil bokkuñu moom nee naa wax ci ma sax juul Pawlish dafa dem parc dafa dem parc am ma dem Palais. bokku leen bokku leen nga dem parc at nga dem Palais. waaw xam nga bokk safin Palais boobu dem ah, Papa ma nga fa yaay Marème Ndiaye nga fa ndax nee naa leen ndaanaan bu fi ñëw. dina leen wa sama yaay Marème Ndiaye. waaw waaw kenn du ma wax ana Moussa Ndiaye. mi ngi fi. Moussa Ndiaye Ndiaye der déglu mi ngi lay déglu. Moussa Ndiaye Ndiaye Ndiaye tan Ndiaye Sëñ Ndiaye Birame Ndiaye ma xel bu boo xel dëw na lay wax. Sine Moussa si àddina eh monsieur Ndiaye Ndiaye Ndiaye ta Ndiaye ana madame Ndiaye waa Kal Massa boom 2STV borom maamu waliyu bi borom maamu oh, tukulóor la wala tukulóor kay eh tukulóor bu nga xam waa Kal Massa baax gën gis kenn du yow nee naa la 2STV télé bu ko gënu si muy réew gënu ko ah. matériel baax na moom laa di ko gis si matériel boo xam ne kii lii naaw lu mu tudd hélico buy naaw di di fumé ma naan lii lan la maa yaakaar ay tubaab noo ñëw pour fetal nit ñi danga dee destive boo ko fi indee man destive bi ba ma demee ba xàmmel ko dégg naa nag nga fi ñëw waa da fi xeex naa fi xeex bu doy nag ku la fi xeexloo maa fi maa fi ma dama def benn émission laa fi ñëwoon xam nga lépp yëngal lu xew fii xeex na fi màkk ñi ko immigré ñi ko ñi ko immigré si laa bokk ndeysaan kon Ouzin yàgg euh, nga de yow yàgg nga ci musique bi. non fii euh, fii xam nga kañ la tijji fii mu ngi tijji 2003 euh, la tijji. 2003. waaw daf la tijji. 2STV. waaw ah. boobu temps yooyu 2STV bu buy day def. vert jaune rouge ay couleur maanaam. waaw mooy affaire boobu di ci géej gi noonu. waaw ah. ko comme noonu bokkatu loolu bu njëkk ba mu saan tëj. wala buy tijji. day def vet jaune rouge bleu meuf bleu rose rose fu saa rose. ay kilo la def xam ma xam ko yàgg naa 2STV. waaw. émi 2STV daal maanaam daal. kilo yëpp daal lépp daal. kon boog di wax monsieur Ndiaye dama bëgg nga defal dama lu baax si tabaski gi. ah monsieur Ndiaye Ndiaye Ndiaye. te amagoo xar ah xam nga dama am famille tam lu ma war a fu bëri amagu naa benn laat. Ah. ñi ma déglu ne bëri na. <laughs> ah waa li nga xam ma àggal damay wax. sam papa sama xarit ah ki ma bëgg a wax xasaa taalibe suñ Tuubaa bi nga xam ne moom moo bëgg ay saa sadio maam jaara busa muy laa Diop xaas ah. borom jinne yi sama papa sama xarit baax gën bis bëgg ma ba mu jeex nee ma Ouzin Keita dinaa la may xar jox la enveloppe bu rëy mataa suba teel dafa na man lu baax ah. waaw mataa suba teel mais Waly mi ngi joxe xar yi de jox na la bëgguma gisuma eh Waly sa doom day la de eh, du ma si wax du ma si dabaax man daal dégg naa ne jox ko xar gisuma. dégg waaw waaw Matar jox na la mais waale lu tax laajoo ko sa xar. dama koy laaj ndi doomu aadama nit euh, booy def euh, bu laaj nit ki dafa yéene la. Hmm. waaw doomu aadama loolu. loolu xam naa ne sa xar a ngi ci yoon bi kon. man xar man est-ce que enveloppe gënalu ma. <laughs> kon maar na nga ko jox xar wala enveloppe xam nga du bëgg ngay sedd. am na leneen lu ma la kiiwal mais titre la boo xam ni moo marqué sa empreinte c'est-à-dire mooy titre bi la indi sur la toile. Oh, ban la bërëng bërigo ndeysaan. bërëng bërigo si la régie s'il vous plaît. ñu mais foog ñu wàcce chaise yi nag. waaw ñu bërëng ah. bërigo waaw waaw ñu bërëng bërigo yi mais ñu ñu wàcce chaise ah. tap bi attends lii la ay pax wala. non du ay pax lii ay verre la. ah moo tax moo tax xanaa moom moo bërëngu la daal di ma sol. mais sa daal yi rafet na nag indi indi ñu nga bërëng bu baax mais bërëngal bu baax ayca ayca ayca ayca. te teg ma sàpp fi mu mën a naaw. eh tàccu leen lii fekke leen lii lay la la laa xamaguma dara dafaguma dara damay soog a doon. xamaguma dara eh tàccu leen lii fekke leen lay la la la xamaguma dara dafaguma dara dam sama sama baay tàccu leen lii tàccu leen lii sa bëri ko bu defee dara bëri ko bu deful dara bëri ko bërëb sa bëri ko eh eh amaguma dara dafaguma dara ma far ma sama yaay nang sama sama mbaay tàccu leen lii ñëpp yi kandak eh da kandak da kandak kandak na kandak na kandak kandak bërëng sa bëri ko bu defee dara bëri ko bu deful dara bëri ko bërëng sa bëri ko eh amoon kébee gamb la satala bu amoon wante waxtaan bu amul dëgg bëgguma wante mbëggeel bu sincère bëgguma na ko kakataan rab ko ran dindiroom moom na ko walax jaan bëgg na takk fel daa amul ndig na ko nen nat bëgg na ko rëy daa amul baat nen dof la nen dof eh, na loxo yi Goma day bilis borom France moom Babacar Gaye noo woo ma El Hadj Diouf bokk ndey Salam Diallo bokk ndey Mokhtar Thiam lay lële laa xamaguma dara jafaguma dara ma ndey Fatou Maar woo ma Sasa Amada yaa bëgg a woo ma ndéggee léegi sax te yaa ma jàppale yaa ma yokk fit ba mu yàgg déedéet tàccu leen lii ray la leen laa xamaguma dara defaguma dara baka ma sabari li ma sabari patata ma sabari borom la ne dikk naa fi may Sénégal njaay dëkk wax njaay dëkk sos Njaay dëkk Evata Njaay ay doon feer ay doon feer ay ku sa ndey baax sa bëreeg na dem wala ku sa ndey bon sa bëgg na taxaw bërëb sa bëri ko bu defee dara bëri ko bu deful dara bëri ko bërëb sa bëri ko mais dina ba faal yaa fi seen talent yi woo ci jaar yaay sama tayal yaa ma jàppale waa Faja tàccu leen lii waa Parcelles lay lële laa xamaguma dara defaguma dara Ndeye Fatou Mar Seydou Ousmane Papa Dieng seen nay Mati Mar bi ndekay yaay Cheikh Faye wo ma yaay Mama Sarr mais jotu yaa ma jàppale war Italia Maami Diop yaay borom France bërëb sa bëri ko bu defee dara bëri ko bu deful dara bëri ko bërëb sa bëri ko eh eh eh eh waaw ma Thione Seck joxal nga bokkar baay ramasek nga bokkar yaay taatum taa si dugg ndox ma taatum taa waxaab général ko peppay tooy peppay <laughs> kay ma indi chaise ñu taxaw rek. li ci des bariwul indi chaise xanaa 3 moom waaw kay naal tënit nii. naal tënit dama bëgg ñu waxtaan quoi. waaw mon <clears throat> mais saa yi titre bi boo ko déggee lan la lay fàttali. et eh, puis fu ne si àdduna. ndeysaan fi ma yóbbu si nit. Zénith ak kat. ak Suède. ndeysaan Danemark Italie yóbbu mu fu ne daal si àdduna. titre bi waaw. mais Ouzin ñi naan Ouzin wérul loo leen di wax. xam nga tam Sénégal ñëpp ñëpp <laughs> na ma ñëpp jàppee dof xam nga tam àdduna. Ah. du dof du am visa mu dem. <laughs> ñoo ko visa am na nit ñoo xam ne. Ah. ambassade bu ñu taxaw kenn ko may. Hmm. man fu ma bëgg a tukki maa ngi tukki. Hmm. sa image may na loolu. waaw ku ne sama kan naw loo ma. loolu xam naa dara waaw gëm sama bopp ba ma jëlee jël ba tey. presse dama ko bàyyi rek mais kenn dàq ko ceeb. kan. presse dama ko ba. Euh, presse sa doom la. waaw banaa ko banaa euh, presse sama doom sa doom la. banaa ko waa nga ni. waaw xam nga nuyu itam sama mag bi nga xam ne moom di nga leen nuyu. awali mais mais Ousse c'est bien c'est bien nga nuyu say nit am temps pour. nuyu waaw waaw mais mënuñu fi toog. te woyoo benn temps parce que yow am na benn woy boo ma waxoon ni ma. demee woy xoolal la ma woy baat bi lu ñu bëgg dégg ah,

Wantalambela. Utila wantalambela. Wantalambela. Utila. ภาษาตามาดำนะ contre temps nga lu bon. lu bon laa wey Tamba aw fii ma aw fee dama gëj a wey nag. Tamba aw si mujj. mais mais mais am na boo mën. maaw tënkee boo gën a mën yow. ma maaw tënkee booy mime booy mime booy mime boobu nga mën. xaale bi lu ma deer ne ma. danga naan xale bi lu ma def xale bi lu ma def danga naan xale bi lu mu la def. mais bi nga woyoon ci corona bee dàq. waa ne ma xale bi lu ma def jël boobu. xale bi lu mu la def. xale bi lu ma def. ne ma xale bi lu ma def. xale bi lu ma def waaw ne xale bi lu ma def. xale bi lu ma def. ne ma xale bi lu ma def yaa may doon. jàpp ma gaaw ne ma xale bi lu ma def. xale bi lu ma la def. xale bi lu ma def. xale bi lu ma la def. man dama tëdd. xale bi lu la def. xale bi na ma oose koyta. <laughs> lu mu la def. mu ne ma I love you ma ne ko ma mu ne ma ay septembre I love you ay xale bi lu ma def. oose xale bi lu la def. xale bi ne ma I love you. <laughs> xanaa ni ambiance non bàkki sëñ Bamba noonu ma ambiance damay xool xasaa xam nga tam si àdduna xasaa eh, sa émission dama kaa préparé waa di jégul tam waa Sénégal tam damaa def clip ci ma tourné clip dafa yéexal waaw jox la mouchoir vas-y clip sûrement xasaa xasaa xaa ma jox la monsieur ar kay continuer damaa def clip six mois génn gu ba tey mu wax la di wax waa Sénégal <coughs> baal baal waxu clip bi baal waxu clip bi baal waxu clip bi waaw ñu préparé waxu clip bi us gaañ nga ma de billaay baal ma je m'excuse je m'excuse. très rapidement Ouzin euh, say projet fan la toll ñu tàggatoo ak téléspectateur yi. parce que man mënatuma maa ngi préparé kii bu bees euh, pour ndewin may may leen ko. lu mu tudd waay bi. Euh, waay bi sama tëyër moo ma tooñ. sa wente yow ba nga ko wooyee ba tey nag yow tamit. kii bi kii bi sama dafa kii bi da taa am. moom ci la la la tooñee mooy sa yére nga solo. maa war a ñëw maa ko jës sa ñaw Mariana. <laughs> tey bi li la def. daf la waroon wa ñawal Michael Jackson. ñawal ma dem ñawal Rihanna. ñawal ma Rihanna loolu tax loolu. ma jaaxal xam naa est ma may. mi ngi lay ba tey moom. non non. fa ngeen bàyyante. non nga dama bëri ay téye na macha allah. waaw moo tax Ibou sa xarit la woon nag de. ba sama xarit la sama nit la. Hmm. xam nga nit naa nit ki xamatuma ko. waaw waaw yaa yaa dafa dogal dama bëri ay téye Ibou Guèye ma sànq bi. tey kan kan moo la bi moom la Ousseyn Kayte. xoolal bu baax. Ousseyn yi yan xeet daal la. sama doom sama xarit. moo moo tànn sama Kayta ma sol nga sol li génn tànnaas. décortiquer ma sañse bi nga sañse. li ma sañse eh, li eh, kii la tere. <laughs> tey waaw ah, tere euh, ma def tout bahan. tout. ma génne daal yu doxe. daal yu doxe waaw. waaw euh, tuuti euh, noir. waaw daal di amul noir de. non tuuti noir moo ngi nii astafurlah maro. <laughs> maro ok waaw maro. Euh, yi am dugg na maxo. waaw dugg na noir tële day am maro nga. Ah. tey euh, lu tas yaakaar bi kon. waaw xam nga tam noir tas yaakaar ndax bopp tas yaakaar la. waaw. <laughs> noir moo tas yaakaar. ma ànd sama manager bi Mass Borom Dakar live. di nuyu sama waa staff di nuyu. Ah, waaw di nuyu ñoom hélas. waaw ah. sama doom. Mhm. di nuyu Ousse Preuve. Massensel di nuyu Masaka Life di nuyu Papa Nene Ndiaye borom ko wax nangaan baax gën riis kenn du moom mbokk yaay maas di nuyu ñëpp di nuyu samay samay samay samay mbokk ku si man ni Faalo Mbay Mbay Dogo mooy sama taaw yaay di nuyu Faalo Mbay Dogo di nuyu Awali sama mag sama xarit di nuyu samay fans dama bëri ay doom nag. waaw Sophie sama doom la dama bëgg te yàlla tax. Mati Wade sama doom la. di nuyu Cukay Kayta ay doom du nuyu ñëpp di nuyu waa Fajaaw di nuyu waa Parcelles. mais ba kontaan nga rek. maa kontaan trop. sa xol sedd na waaw ana xaalis bi xasaar dama jox. lii li ni may ci téléspectateur. waaw tey parce que xaar ma ñu wàcc ñu ma ma ma gis Maram Ndiaye doog laa gis. waaw waaw madame Ndiaye. Ah. monsieur Ndiaye. waaw maa ngi toog di leen xaar sama xaalis xaar. dugal dugal ci biir. dugal waaw kon dégg du neex. dugal ne ayca. naan ko lan jox ma lee kaay jox ma lee jox ma téléphone boobu. <laughs> sama xarit la Ouzin Keita gërëm naa ko moom itam euh, merci d'être venu au Parc des Princes kontaan na la bu baax a baax c'était le prince du jour waaye li ma daj tey tarkal la xam naa foog ma dem ci Eva Beva soin de visage mu mën maa defaral sama yaram bi ndax lu ne ay dóor ay kurpeñ lu ne rek waaye yéen ko jaar ay mes chers téléspectateurs da ko bëgg moo tax ñëw na bégal nu ñu ngi koy bëggee prince gis naa sa message maa ngi koy bëggee Raki également que jëlal ma daal yi jëlal ma daal yi parce que Ibou li ngay def ci daal réew mi ràññee nañ ko te kontaan nañu ci 810 77 62 bu mën a jot ci daal yi nga xamante ni allah euh, moom moo koy joxe Ibou Maquette euh, merci beaucoup à As Collection pour t yi mais t yi foo nga joxal ma ci caméraman yi ak techniciens yi ak techniciennes yi joxal ma leen ay big size ay euh, XL As Collection may leen ma tuuti rek ba ci Grégoire may leen ma ma joxe numéro am pour mu prochainement incha allah ma indaale ko 77 075 85 85 77 075 075 85 85 xool fa muy jaar lu ko neex lay def Ouzin Keita merci beaucoup à toutes et à tous et prenez soin de vous et passez une excellente ceebu jën une excellente euh, ceebu bu bu dooree daal bu am jom man dama bëgg ceeb tarkala merci beaucoup à toutes et à tous et ciao bonne journée ay ñu dem jamono jii ñu toll defe naa ni xol yépp ñu nga màkkatal mukarrama tafsir naka la ñu ziyaara yonent nga ni tëll jàkkaarloog rawda bi sallallahu alayhi wa sallam mbirum aj du nu mu la neex mbirum aj du nu mu la arrangé